ginnaaw rek euh, ci ay kàddu yu ñu nangoo rek euh, ci avocat wul kii di Ousmane Sonko euh, kàddu yu maître Djibi jàlloo lam ñu xamal rek moo di seen client bi la di usmaan Sonko yeneen daan rek moom la ñu daal di jël rek toftal ko ci ndoddam mu di trouble à l'ordre public moom la ko waa section de recherche daal di jëlee rek jamono ji maître Djibi Diallo rek moo ñu ko daal di xamal tax xam la na ni bis bu yeggee dañu koy daal def lii di mandat de dépôt defeere ko au parquet amaana sax mu mën a janoo rek ak juge bi ñoom daal loolu la tënkal rek euh, jamono ji mu di kii di Ousmane Sonko rek waa section de recherche ñoo ko daal di mujjee rek jël daal di yóbbu ngir rek trouble à l'ordre euh, public waaye nag avocat mi nee nañ gis nañ rek yëf yi ni mu demee ndaxte 9h lañ leen convoqué woon ñoom nag bi 9h jotee kii di Ousmane Sonko gis nañ ne rek génn na waaye nee na nag ñoom force de l'ordre yi ñoo leen mayul rek benn yoon fu ñu jaar ba tax rek lii daal di am ñu bloqué leen ba amuñu fenn fu ñu jaar ba ñoom sax ci la ñu daal di décidé woon rek daal di ñëw jël ko Euh, yóbbu ko rek ci seen oto pour mu daal di dem wuy ju juge bi waaye nag dañ leen a xamal na leen euh, yéen du ngeen ko yóbbu waa section de recherche ñoo koy daal di mujjee yóbbu euh, ngir trouble à l'ordre public maître nag Djibi Diallo nee na bis bu demee dañu koy def mandat de dépôt defeere ko au parquet après nag ci lay daal di mën a janoo rek ak juge bi lii rek lañ leen mën a tënkalagul rek jamono ji ci mbiru Ousmane Sonko ak kii di rek Adji Sarr mu mel ne nag dossier ba leneen rek lañ ca daal di ubbi lu bokkut ak lii di viol répétitif ak menace de mort xonq